nga bokk ak nit classe mu am na du baax nga ne day tricher bokk ak nit daara mu tari wala wàcc sëriñ bi da faral nga ne nga dëkk ak nit mu yor yu baax nga ne da koo nga bokk ak nit liggéey mu yokk nga ne day cogg su dee jigéen nga ne promotion canapé yàq deru nit ki jël àddunaam yàqaale jàpp nga ne lu baax yow képp yaa ko yellool soo ko xamee da ngaa soxor soo ko xamul da soxor da ngay gis ku mbiram di dem ñu jiñ ko cumbukaayam so amoon jom farlu ni mom yalla jox la am am jek bu yeb avion ñu ne day jaay bopam ku jur ku matul nit di febar ñu ne da tay la njabotam nga dekk di jaamu yalla ñu ne deru xaj ngay julle dogal dal sa kaw bettu ni rek la démé da nga iñaan 6 bon nekk so sañoon yor soko xamé da nga soxor soko xamul da nga soxor ku soxor dina saxar waaye du mës tàq li nga len yene sa kaw lay këpp ba jeex tak fatu am yu baxam kinne ne modus baran modou sakami lancam demba ne bran la am ko gis mu nan ñew la nek ci xol ba baxul mbir dal nit nga matt tuñ nga ko yéenawul da ngay am rom nit ki dafoo ko dara mu mere la nga nuyu ko mu sawal la su demee ci nit ñi toogee la ki nu mu fuyé nu mu sofé ni ko jéppee monte ko dara da nan ni mako ko mën nga soxoré ki la ëppalé wala ki nga ëppalé ki la ëppalé soxoré la wala ki nga ëppalé da ngay gis kula jégué wala sa mbokk soxore la kula sori wala nit xol la neexoo ko mu soxore la ñaara am ki soxor diko neub ak ki kay wone ki mo wone bëgguma du jafé ki ma gëna bañ ak man di ma ba ñi sama musiba ñàkk baax ci man mi nañu delloo ci xel yi ndax lepp lu am yalla dundu moma de moma lago it moma këru ku yorul su fa nakkar ñu ne dogalu yalla këru ku yor su fa ñu ne sacrifice la ku ñu gis muy dem ñu ngi xool niñ koy sëkkalee jiñ la jaay drogue sàcc franc-maçon borom ñaari turile lu bon bul lijjant ki koy def lijjantil ba bu ko def picc jàmbur bu mu la yitteel sa taab na la doy li nga xam yàlla nëbbal la ko te koy def as su ko gaa yi xamoon nga am lu la doy néew fi dalal xelu ñuy def naka su dul noonu damay ñaax ngir ñu rafet njort ba noppi maanu ki baax ak ki bon ku dul yàlla xamu ko ab listam la yor ku ko soob jox na ko xamoo ni nit ki daf ba am ba tax na bu ko ñee am mën naa yéex wala mu gaaw yàlla nu ko neex lay defee xale ëpp na wërsëg mag mag ëpp wërsëg gone doom ëpp wërsëg bàyyi caat gën demin ci kër gi le xale bu jigéen yor na kër taxul muy jaay boppam bis penc nar a neex ndax lu ne dana fa am dangay gën a yëngu nit mu njëkk a tekki nga naan dimbali nit mu ëppale la léegi wala nga xeeb kenn mu romb la bay jaabal ku ñu daan sarax jékki am bay géejal nit yàgg na ci lenn di làmbaatu daj ci lu ne jàngal keneen mu raw ko daal di koy ëppale yàlla mën na lu ko raw si diggante xippeek xef programme am la yor lu ko neex mu def Sénégal nax dana mës a tegu ci yoon bi ndam bi nax dana fi mës a agsi ku ñu tappal ndoomal tànk naka lay def ba génn si ndam mënta am li fekk jàmm feesul ci xol yi mbëggum place yopp na soxor delloo si leen xel yi planton soxore na patron patron yéenewul planton sa bop tax nga yakal société bi bul nu fonton su nguufante diw takku sul reyante ngir place bi soxor baxul ci économie day delo rew ginnaw ku fi am day laku bañ ñu tek ci daram lu ñaaw bëriwuñu ressource gënuñu fay xereñ bëgg ci boole soxor fenn lañ dul dam bu ñe bo bay soxor jot bi nga yak ci lijeenti soko ko ci uti ami. li nga yak ngir fexel soko dajal won mu bari ku xagn sénégalais marché jox ko kenen da nga soxor baña consommer local di walian lolu loolu it day soxor am na ñu ñaaw njot jàpp na ñëpp soxor amaana nit ñi taluñu la bay xool li nga yor ku bëgg féetewoo di maye jën da ngaa soxor jàngal leen ni ñu nappee su ko defee ñëpp yor ku bëgg siw ñaaree day soxore ku am succès léeg-léeg mu jaral ko lu ne ngir yàq succès am bëri na ñoo xam ne seen rab li muy bañ mooy kuy dem ku ñëpp xam foo jëm doo àgg kuy yoddu sëkkat nekke àddunaa ngi da ngay tànn doon dara bëri noon wala ñàkk tekki dara ñu lay may sarax ak a dimbali man moom graawul ku ma soxore yaa fa dee ndax benn xaritu akkan moo ma gënal ay xaritu benn bakkan yu may gasal kan ginnaaw ngoog lu leen neex wax leen wax ju bon baaxul te lu fi nakaree jële la waaye ndokk ba du takk fenn tey dellu fa mu jóge dëkk fa taxawee taxawaay néeg borom bi soxor fanaan fa garab bi nar a doon bénc loo bi du ko gis ba koy gor dawal leen ci oto yu baax yi dëkk leen ci kër yu mool yi takk leen si jeggi jeggi see gaa yu baax yi sol leen lu rafet xeeñ lu neex lekk lu neex bañ a faale noonu yi demuñu bëgguñu kenn dem xëpp nañ suuf si ndab li sëriñ Saaliw nee na li nga yéene sa bopp yéene ko sa moroom li nga yeyale sa bopp yeyale ko sa moroom tënkal sa bopp ci teggin bañ cee seet say moroom teggin mooy jëf lu baax te di ko jëflante